je pense la tasse de lu tax loolu lu waral loolu. day tontu na Bougane moom jiitu na ci Baare Sonko. Ah, tëglul waaw non xam nga man. ñëw waa ñëwal. non damay damay wax li xew. acca lu xew. ay bu genre Bougane Gueye Dany ñoo nañu bugg journaliste yi leen tarbiyu. journaliste yi leen tarbiyu. man duma tarbiyu kenn dama ko critiquer critiquer ko waat ko critiquer waat ko xam naa gars yi ko ko yóbbu ko. Hmm? mu mer. mu mere ma. Bougane waru def sama journal du jàll ci revue de presse am. loolu jaaduwul. man duñ ma invité seen. révélation man duñ ma invité seen TV xam nga fii Sénégal nag fii tey bu ñuy wax chroniqueur kese. ay numéro un. je fais partie des meilleurs. non non man dama jàpp numéro un. est man mun naa mun naa mun naa bañ am invitation si benn télé. loolu c'est loolu c'est impensable lu kenn wartu xalaat la. non kenn mënu koo xalaat. oui parce que fa ma demul ñoo ñu may invité de. oui maa demul de. Ah. dañ ma dul gis nii. waaw ah. bu hmm. mais mosuma invitation seen TV mosul jógee ci Bougane maanaam télé ba ñëw parce que man xam naa li xew. lan moo xew. dafa am ñu nekk si liste rouge am. ah. waaw kii ak kii ak kii ñu dugg suma télé. mais eh, Bougane loolu mu def garaaw na de. waaye yow kat kat dafa ma tere wax man. télé yi bëri nañ rajo yi bëri nañ. waaw waaw man bugaan man man am na organe bu mu amul man. mais wax sa xalaat taxul mu. def la ci déggoo lu ma la bu mu amul. journal rajo waaw am naa ko bëgg wax mais li ñu moom dafa am moom yow nga fa mais moomoo ko. mais ma la. am naa rajo. nga rajo am naa journal. d'accord li muy wutile moy nekkul nekkoo politicien. bu gan neena Sonko li tax loolu. Sonko dafa di dafa wax ak Macky Sall. ah non wuma a ah, ci ñewal mais nak dama d'accord xam nga man. da nga d'accord ci mom dara ci posturam wa d'accord. ma Sénégal la bëgg. mom bu waaw Sénégal bëgg nako torop. mais bari na jafé jafé ak. waaw deglu wol limu wax dama ne. xam nga man dama njëkk commencé ni maa moom jiwawuñu loolu dëgg la dégg nga tubaab hmm. maa moom jiwawuñu mais nit danga koy seedeel ac ah, ñi déglu la ku bëgg a réew mi la hmm? ndax mënoon na dem defi leneen dégg nga wax ah waaw bi mënoon na jënd glace sedd guy sedd guy <laughs> yam na fi ay patron de presse yo xam régime bu ñew ñu and ak yow ndax seen intérêt jënd glace kon non nako ko def dañoo ba d'accord benen bi bu dé nit contribuer na pour daniel Macky Sall mais geej Gueye ken ëppalé wu ko ci ci bu tank mais da ngeen faté ni Bougane geej dañoo calé liste législative téréwul mu jël ay millions ay centaines de millions dem campagne ne leen rek laay laay campagne bu leen votel Macky Sall ak ay député mais mënoon na toog këram. Hmm. te fii kaay moo wax la am na ñu fi am tey ci ay affaires yi li buggaan def ci effort defuñu ko buggaan a fait le tour di Sénégal avec ses propres moyens dégg nga bu baax xam nga. xam nga Sénégal il faut nga koy reconnaître benn affaire. il aime le Sénégal. dégg nga. Mm-hmm. kon yeewu suba teel jete ko nii comme tey tey su bëggoon négocier day nekk ministre comme ñëpp ndax fii am na ñoo xam ne fii nekk nañ fi ministre nu mu leen ëppee doole du benn nu mu leen ëppee influence du benn tey la un groupe de presse su ko neexoon ñëw jox ko état. Mm-hmm. amul fii ku bëggul ànd ak Bougane ndax lu mu yor. yaa ngi dégg. oui te nag démb moom lu ma koy contre yëpp toj na fi de démb. démb toj na fi de. waaw yow président génn nga génn nga ëpp ko bës. ah bon bu nga ëpp bës jamaay bës. dama jël journaux cinquante cinq quotidien moo génn tey dama xool kontel bugaan kontel kii nga xool. Hmm? moo jël bës bi. mo jël bës bi. mu jël bi. lim li indi justification varam moom loolu loolu loolu am ci la fekk euh, bu mu déggee ne gars yi ne ñoom ci ñetti point yu am accord. Hmm. mu ne na nañ wax ñoom ton point waaw le wax. tomb waaw. ci waxtaan ba. ci waxtaan ba. na ñoom man dama ko mais dernier virage bi ma def.

man si télé Sénégal yi laa doon waxee. oui man fii laa nekkoon man daw ma woon de. <laughs> demoo fenn. non Ngagne Demba dafa daw. il est sorti du pays. le nouveau DG Ngagne Demba Touré. oui il est sorti du pays. ñeneen ñi man lu ma mun témoigner mooy da leen doon woo téléphone bi sax duñ ko jël. déedéet ñemu ñoon wax responsable Pastef jamono jooju. Ah. tax nga na jër. man may dem ci plateau yi di wax la may wax. samay mbokk samay xarit naan ma xanaa da ngay xaru. da ngay xaru. day wax ju baax hmm. ndekete ñom mujjé wuñu fenn lul dem tok ak Macky Sall di waxtan day wax ju baax guddi rek la affaire bi Bouga, Bougan, Bougan... Le peuple sénégalais n'a pas gagné. Le peuple sénégal n'a pas gagné. Le 24 mars. Ah bon Macky mo don président, mo fala président. Macky Sall, mo fal jomay Ah. ha lolu révélation, bu gëna reuy Ah, borom révélation mais amul leneen Macky Sall mo fal jomay boko waxe day metti sénégalais man sax daf ma metti lool man sax lool daf ma metti Macky mo fi falu ñaar yoon amna 3e mandat ndax mo fal jomay jama am lu lu lu xam bu dina mais dina est ce que bogan mi waru nek Sonko numéro 2 ci mim rew moy bogan nak sakarit la yow dedet je mande interview bu mag rek ak mom e man du sama xarit sama xarit la wa nah, ah, man du sama xarit sa nah, sama xarit lañ même même ma jamba sax sama xarit la wa mais man du sama xarit da nah, Aram Touré sax sama xarit pap Pape El Ndiaye sax sama xarit la wa wa yusu Ndour sax deug yalla sama xarit sama papa la wa Cheikh Yérim Seck sama xarit la sama wa sama doaay la waaw sama xarit la mais man du xarit doo xaritu Bougane non man naa na ngeen jubóo ak nag Bougane nag vraiment nag nag yow na eh, Doudou un chroniqueur comme Doudou Coulibaly nga koy oh, non ko zappé loolu dañ ko vérifié journaliste d'investigation gu ma def danaa ne euh, liste noire bi ah waaye bu def liste noire est-ce que liste noire boobu na taxul ne moom élection euh, direction générale des élections du def liste euh, parrainage am yi rek ah bi waaye. est-ce que est-ce que defuñu ko si liste ah, danaa ko laaj de monsieur le le président Bougane Guèye Dany te du Coulibaly wattu bokk ci ñu def li noire ah chroniqueur bu xamante ni li muy macha allah mbokk yi lu desoon ci waxtu wi bëriwul xam naa ne dañu def la suite bi comme public chrono moom à partir de treize heures ngeen ko xaar ko rek ci public SNTV fii rek lay amee nag fii rek lay exclusivité bi amee révélation te lan la xëyee tey. révélation mu ngi wax si Modou Ndiaye Rahma. moom la def à une tey. waaw nga xam ni dañ ko mettre sous mandat de hein? dépôt. ah Abdourahmane Abdou euh, kii. Euh, Mamadou Ndiaye Rahman Mamadou Ndiaye Rahman moom Macky Sall moom moo fi conseil spécial non. moom moo doon moom ministre conseil. euh, candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi passé ca Benno Bokk Yaakaar. ca kaw hmm. moo doon candidat. dafa am benn terrain boo xam ne mairie Kaolack moo ko moom. jege micro bi oui mairie Kaolack moo ko mon mu fexe daal ba aakimoo ko jay ko. loolu doy na waar. waaw ko plainte ñu démé juge bi né nañ ko inculpé. Hmm? wa mais bu mu démé appel bu mu défé appel chambre d'accusation bi nga l'appel est suspensif. oui. l'immeuble nak coûte trois milliards. mooy coût estimé bi. c'est révélation mais li gën a garaaw mooy xam nga Modou Ndiaye Rahma mhm. li ko yombal mbir mi mhm. ci affaire bi mhm. li ko yombal dëgg-dëgg mbir mi ci affaire bi mooy euh, ki nga xam ni moo doon maire ba en son temps soxnaam la woon hmm? muy Mariama Sarr mu mel ni nag dafa am faux et usage de faux oui ci biir affaire bi hmm. ak complicité moo tax ñoom ñëpp entendre nañ leen. Hmm? affaire bi fu muy mujj. révélation révélation benn affaire la. Hmm. révélation rek. Hmm. mbokk muy nekk euh, journal bu xamante ni si doyen moom mooy ah, am nañu fi am am journal de waaye meruñ. yoor-yoor borom yoor-yoor daal léegi merutut. <laughs> Ah, aw aw am lu wute ak révélation de. dama xamul yoor-yoor lu tax mu yooru borom révélation toog rek moom ak li mu défendre projet bi. waaw yor yor de maa ngi ko sali au passage meratul de ah meratul meratul de te war nga xam ne yow meratul très bien ah très bien lay wax ci loolu waaw lu muy wax dara waaw tàggatoo ak yaa ko wax ah meratul dama bëgg borom yor yor mu ñëw ci fii publier seen TV danaa ko indi dafa am bu boo béggee nag vraiment su xol bu seddee danga war a ñëw fii. Mm, waaw dëgg la <laughs> waaw ñu waxtaan ñu waxtaan <laughs> ah, ah, yaatal rek mais man ma foofu rek euh, boobu moom dana am kii bëgg naa mu rëccu mu mu delloo parce que nag am na fu mu toll fu xamante ni mooy euh, doyen naanaam Bougane Gueye Dany vraiment ma dama xamul fan ban choix la mën a def am le meilleur profit chroniqueur de l'histoire politique ko du Doudou Coulibaly xanaa moom du lay suivre hmm? ah fii bi ñu fi coupé signalé Walfadjri dem na fa ndimbala Walfadjri ku ne Walfadjri xam ne Doudou Coulibaly ko moom mooy maa ko wax. Hmm, yaay borom Walfadjri. waaw sa kàddu gu mujj. am na ñu ñu naan dañoo yow waaw Doudou léegi ah, parce que dañ laa dàq Walfadjri <laughs> nga mer ñëw fii <laughs> waay mag waa Walfadjri. non nous avons les meilleures eh, eh, eh, yaay Walfadjri Walfadjri yow. gis nga gis nga loolu. kenn dàqul Walfadjri oui. Elmat.

ñun duñ privé TV public TV lañ public SNTV. Hmm. ba pare nag duñ fi wax lu am solo réew mi. Hmm. ndax doyen bu mel ni Doudou Coulibaly nga gis Adama Fall chroniqueur yu mel ni Bachir Fofana Alioune Sow Aïssatou Diop Fall rek ci plateau beneen affaire la. di ci journaliste hmm? xam réew mi donc ay ñu te fi ja école la dañuy jàngale yow rek. ah wa journaliste yi nek fi ci tali yi di di yëngal site yi te da nga bari ñoo formé nañu yëngal eh, ay sidi yu bari bari bari bari bari da nga participer ci développement réew mi mm-hmm. jamaay war na recevoir de waaye nag comme da nga wax da ngay bari premier ministre am du lo recevoir <laughs> wa tàggu tàggu ay télé téléspectateurs yi sétane ma lay maa ngi gërëm ñëpp di di di sant ñëpp mm-hmm. euh, fan yi dama demone demoon Foundiougne Foundiougne euh, yóbbu fa samay étudiant pour nous def un voyage d'étude mhm. maanaam gën a tàggat leen ci ñuy xarañee ci journalisme mhm. ñu fait un événement bu la mhm. première édition oui du festival du cousinage à plaisanterie euh, Renou ànd ak cour royale nous avons oui ngir ñu renforcer les relations entre séeréer et jola àndi collectivité lobu oui ànd ñi nga xam ne ñooy collectivité alpulaar mhm. mu nekk une rencontre culturelle multidimensionnelle moo xam ne ñoo fa teewoon ñëpp oui kenn regret regretté ko gis nañ fa culture gis nañ fa saafonte waaye jàngee nañ fa lu bëri waa mhm. te profité naa xam nga les îles du Saloum nag boo bëggee reposer dëgg-dëgg moo tax man ñi may gis ñuy jël ay avion di dem ay Dubaï